di xaritu xale yi wayé nak wayé nak damay préférer taxawe fi cërub doomu daru Xuddoos cërub doomu serigne Mbàkke Soxna Lo sama loxo bi kuko dagon tay deret di ci génn deretu daru Xuddoos lay doon man fi la bok motax émotion lay waxe tay émotion lay waxe nak ndax damay wax ci ginn ci kanamu samay xarit samay sëriñ samay mbokk di sëriñ Cheikh Abdou Bali Mbacke Gaynde ma ak sëriñ Cheikh Mbacke mii nga xam ne yàlla dafa dogal mu nekk sama sëriñ ba noppi nekk sama xarit ma leen di wax ne waa Taïf lii rek moo mën a am vraiment sama xol sedd na guy ndax président Macky Sall daf leen ji teraanga ji ko Daaru Xuddoos teraanga joo xam ne ku ne gis na ko lépp lu bokk ci sëriñ Cheikh Mbacke sedd na ñëpp réew mi ñëpp sedd na leen. waaye nag nee na duggam ci yoonu Serigne Touba mi ngi jaar ci Serigne Mbacke Mouhamad sedd na waa kër Serigne waa kër Daara Khoudoos bu baax a baax ci li muy def lu muy def boole ci Daara Khoudoos tey nag ñëw ci Taïf gi nga xam ne mooy capitalu Daara Khoudoos mu ñëw fi mu mbooloo mi mel nii lu ñu sedd suñu xol lool la may profité ci occasion bi di nuyu nag sama rakk sama xarit sama doomu ndey Mbaye Tine yéen waa kër baaba ana ngeen ana waa kër baaba samay mbokk ngeen ñun ñoo bokk dëkk Jolof dama ni mbaytin nañ ko jàppale yoon wii mu teg mooy yoon wu baax wi mooy yoonu dëgg wi ndaxte dëkk bi kenn ci ñun mënu koo defar ku dul li am ci état bi moo ko mën a defar ànd ak état bi nag ànd ak yoon wu mag wi loolu mooy yoon wu baax wi wax dëgg yàlla sama wax mënu cee guddu dama kontaan lool di sant ñëpp di tàllal loxo nag jeune jeune jeune Taïf yi toute la jeunesse de Taïf baaraloo ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk fii di jeunesse Taïf bi maa ngi leen tàllal ñu ànd liggéey ensemble incha allah pour développer suñu territoire bi développer Taïf développer arrondissement bi ma leen di sant bu baax di leen gërëm di sant aussi ñi fi njëkk a samp APR di leen wax ne ndam weesuwul ba ngay woote ñu bari ñëwul ba far ñëpp màbb ñëw ci sa kaw bu ñëpp ñëwee loola bu ko kenn xoole nen lu dul sant ci yàlla te xam ne noonu moo lay wane ni am nga ndam ndax la nga doon wootee léegi ñëpp d'accord nañ ci ñëpp ñëw nañ ci maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne nañ jàpp ci suñu liste bi nañ jàpp ci suñu tedd liste bi ndax Serigne Abdou Bali Mbacke mi suñu sunu waa kër la waa Daaru Xudóos la waa Touba la te intellectuel la te mën naa ànd ak ñun ba nga xam ne fi lañ bëgg li ñu bëgg ci arrondissement bi ñu am ko